li nga xamné mo gëna a tax ñu woté ndaje bi suñu joggé ci poñ bi nga xamné moy élection locale yi lancer l'organisation de l'anniversaire de notre parti Alliance pour la République le 1er décembre organisation bobu nak étudiants ñokoy def suñ nous ci lolo aussi dinañ wax touti ci posture opposition sénégalaise pour honorer seen taxawaay mais aussi sénégalais mon mun ban kanam ak ban opposition la am suñu kanam loolu nag dañuy tàmbale di remercier le président Macky Sall du consent sant coup gérer, gërëm ci taxawaayam guddeeg pour jàppale sénégalais pour améliorer aussi ses conditions de vie barki de rek la lancé le Centre international de cancérologie au niveau de Diamniadio xam nañ octobre bu ñu génn ou chaque année octobre sénégalais yi dañuy mandargal de sensibiliser di taxaw pour la lutte contre le cancer loolu nak président su démé ba jël ci xarañcam ci gis-gisam ci yërmandam ci sénégalais yi ne day tabax centre international de cancérologie il y a war nañ ko cee gërëm mais aussi war nañ ko cee sant ci biir aussi taxawaayam gis nañ ne tey suñ demee ba élection locale communale et départementale président Macky Sall dafa am taxawaay bu am solo bu mu ci am parce que nous ñu génnee élection présidentielle 2019 avec une majorité confortable mune de damay woote dialogue national inviter tous les pans qui composent cette société muy opposition muy pouvoir muy société civile kaay leen toog ñu pour gën a jëmal gën a démocratie ci biir conclusion yi fa génn moo tax tey ñuy wax élection locale ak départementale donc loolu day wone taxawaayu président Macky Sall des wone le président Macky Sall en tant que patriote en tant que démocrate et élection locale yo ñu jëm parce que président Macky Sall taxawayam ci APR taxawayam ci bir Benno Bokk majorité bi du président de parti mais taxawaayu wajur la fi taxawé donc day métti pour nga choisir day métti pour nga tànn mais comme mënuñoo tànn ñëpp am na ñu mu tànn ci ñàkk pexem mais ku nekk war naa jàpp ne ku président Macky Sall tànn rek yow la tànn parce que njaboot bi yaatu na kon ñu mu tànn ak ñu mu tànnut ñëpp nañu laxasoo doon benn ànd ak le président Macky Sall ànd ak ñi nga xam ne moom la tànn ci commune yeeg département yi pour Benno Bokk Yaakaar mën a gagner élection locale yi ñu jëm parce que nag élection yu particulier la élection yu am enjeu la donc ñun ñëpp a war a jóg rawatina nag ndaw ñi rawatina étudiant yi xam ngeen stratégie bi xam ngeen ban doxalin ngeen war a doxale ba wax suñu waajur yi wax suñu papa yi ak yaay yéeg mag yéeg mbokk ñi pour ñu gën a taxaw jàppale Benno Bokk Yaakaar e yéen a ci gën a am taxawaay bu bu jëmal parce que yéen a nekk ci université yi te xam ngeen li président Macky Sall liggéey ci université yi xam ngeen ni président amélioré seen condition muy côté bourse muy côté pédagogie muy côté faju donc il y a des pour taxaw pour wax population bi pour ñu gëna voter président Macky Sall lolu Si su ngeen xolé université de Dakar nous mu mel da ngay japp né ci université européenne nga nek pourtant c'est en Afrique et c'est au Sénégal lolu nak daa am ñu ko jëmal mun naa cee citer rek docteur di COUD Maguette Sène tey autant da nga doon génn ci mbedd mi sa waajur wala koo koo tasel nga ne ko université da lay daw mais instant yi week yi da ngeen di gis per de famille yi ak seen doom ñëw di doxantu ci biir université bi parce que cadre de vie baa nga fa condition yi ñu nga fa et loolu day fekk ci ci président Macky Sall lu mu doon wax promouvoir l'excellence dans l'enseignement supérieur suñ jógee ci poñ boobu damay ne élection locale yi war naa tax sénégalais yi am beneen taxawaay seetluwaat taxawaayu opposition parce que ci investiture kese fu ñuy tànni ay candidat qu'est-ce nañ fi ñi daw ak seen liste d'investiture gis nañ ay démission loolu day wone né Sénégal ñoru leen lenn moo leen ñor mooy seen bopp te ki nga xam ne sa bop moo la ñor yaakaar naa ne pare guñ pour jël suñu réew mi dénk la ko donc loolu wone na posture opposition bi wane na seen bopp moo ñor dara ñoru souffrance wala besoin population bi seen yoon ne ko ci seen rek ne mouvement élève étudiant républicain comme nous koy defee chaque année ou bien at bu organiser anniversaire parti bi parce que nag symbole la ci ñun surtout ñun ndaw parti bi je makissal Macky le 1er décembre 2008 trois ans après quatre ans après mu accéder au pouvoir Nous, ñun dañ koy téye te dañ koy consolider l'anniversaire duñ ko ñu aussi dinañ organiser anniversaire bi et turbine lay doon pour ñëpp parti bi les muy cadre muy jeune muy femme muy enseignant sa ñum ñëpp ñu daje fi gën a suñu diggante yi suñu solidarité bi nga xamné symbole la ci suñu parti et pour ñun ñëpp ñu and jublu nak ci élection élection locale yi et permettre président mu gagner largement et confortablement jour anniversaire bobu aussi occasion lay doon pour ñu rendre hommage suñu camarade suñu papa suñu waajur bi nga xam ne def ñoo quitté récemment muy Abdourahmane Ndiaye ki nga xam ne moo jiite woon moo yoroon secrétaire administratif parti bi waajur nag boo xam ne dafa amoon taxawaay ci njaboot bi au-delà de soutien bi ak liggéey bi mu doon def ci wetu président def ñu doon ginde daf ñu doon won yoon def ñu doon xelal daf ñu doon orienté daf ñu doon jàngal kooku nag yaakaar naa ne su wañee ko ñun ñëpp a ñàkk rawatina nag le président Macky Sall. Macky ñu ngi koy jaale waa parti bi yëpp di nga ko di koy jaale aussi njabootam ak ay xaritam donc pour jeexal dama ne pour la victoire de beno Bokk le mouvement des élèves étudiants républicains s'engage. Merci beaucoup.